malgré que situation bi ma nekk tey mënoon naa noppalu mhm. ndax sëñ Moustapha moo fa xewle mhm. te bëgg naa ko fekkee mhm. alors ci booba la ne ma balaa ngaa dem nga jaar fi ma yeb la moom it mu ngi lay nuyu di la sant ci jàppale bi nga koy jàppale euh, di kontaan ngay def lu mel nii di wër Sénégal di yee askan wi yee njaboot gi fii nag tey ci Ndoukoumane euh, man ñëw bii ma ñëw fii mm-hmm. gaaf na gaaf gu baax mm-hmm. ndax mm-hmm. Euh, jàpp moon ne assemblée nationale dina ñu renouveler bureau démb xaw moon ne yéen dangeen daje fii ak seen tant bu rafet bi ak seen organisation bu baax bi yàlla def ma yoroon cër assemblée nationale démb muy président groupe parlementaire ci coobareem ak ci bëggu Ablaye Wade président la république ñu jël ko dénk ko keneen mais yàlla mi nga xam ne moom jeexalul dara mm-hmm. mu yëkkati beneen cër mm-hmm. fas yéene dénk ma ko incha allah mm-hmm. muy président commission affaires étrangères loolu bu fekkee ne fii laa koy waxee waa Kaffrine nga toog préfet toog sama mag ju baax jee nekk maire bi toog sama sëriñ Modou Mbacke toog yaakaar naa tombe bu baax la may ñaan sëriñ bi di ñaan aussi ñi fi toog ñu ñaanal ma bu ñu ñaanalee président ba pare mu yor réew mi ni mu ko bëggee ak ni nga xam ne mooy njëriñu askan wi. Mhm. ñaanal ministre d'État Idrissa Seck. ci ay mhm. fonction am ak mission mu doxal ko na mu waree. Mhm. ma nit ngeen ñaanal ma liñ ma dénk ci mission. ma mën koo doxal pour njëriñu askan wi. loolu mënuma ñëw fii ba jógee fii nag. te duma ko wax parce que yaa ko wax léegi. yàlla du defal nit euh, li nga xam ne mooy te waxu ko sama soxla nag mooy ngeen ñaanal ma mhm. sama mission ma mën ko réussir mhm. ba nga xam ne kenn du ma kenn du ma jéppi ci li nga xam ne joxoon nañ ma boobu mission sëriñ bi loolu moo doon kàddu yu gàtt yoo xam ne bëggoon ko fi yëkkati mhm. di sant ñëpp nag euh, di rafetlu jotaay bi jërëjëf jërëjëf te itam jaar na yoon nit yaakaar rek la am waaye yaakaar it dafa am fu muy jaar rek ba keroog mu yegg ci yàlla ay yàlla moo yore dogal yi te mooy mottali kon nag sunu yaakaar ak seen yaakaar ak yaakaaru ñëpp teg ko ci loxo yàlla te ñaan yàlla na ko yàlla mottali na mu gën a rafet te gën a baax ci ñun baax ci askan wi ñu ngi lay ndokkeel ci nomination yu bees yi tey ñaan rek yàlla itam démb benn mbokk daf ma wax ni ma le directeur de la surté nee na mu ngi lay nuyu te mu ngi yeesal wëllëre nee na keroog bi nga njëkkee ñëw sa voyage bu njëkk ba mu xamanteeg yow nuyoonteeg yow nga ñaanal ko ca la ko yàlla defee sutura ba léegi mu nekk directeur de la sûreté te ñaan na yàlla nekk leneen lu gën kawe nag nga ñaanal ko ca waaye moom it li mu wax loolu rekk la bu ñu sañoon di leen jig te ñun bu ñu sañoon du ñu jige di nit waaw ndax jig nit rek moo ñu jig waaw waaw kon nag yàlla nañu leen jig yéen ngeen bàyyi xel am na koo xam ni la mu yor yëpp moomu ko nit ñee ko moom moo tax bu ko nit ñi bàyyee xel rek la mu am yëpp mën na ko jox nit ñi te jàppale leen rek nag moo ñu intéressé waaw daa wax naa lu bari fi ma jaar ak maître Wade wax nga ko fu ne jaar nañ fa lay ndey sax yu bare sax yu bare yu bare yu bare ndeysaan booba sax duggaguma prison ndeysaan wataliku keroog ca ngoon ndeysaan fekk ñu ngi ko denc ci conk te ñu bind ci journal yëpp ni Moustapha Sy ñu ngi koy seet daw na dañ leen ko bind loo yëg naa yëpp waaw ah, Moustapha Sy ñu ngi koy seet daw na fi ñu ko bindee ma téléphoné directeur journal bi ne ko maa ngi nii sama bureau waxal ñi may seet ni leen bu dee maa leen yitteel maa ngi sama biro nañ ñëw mu daal di bindaat ca suba ne ah baal leen ma dañ ma ko waxoon noonu rek waaye nekk moom mu nga woon biiroom nee na ku ko soxla mu nga fa waaw ah, ñu faf ca suba ga yëg nañ ni maa nga kër wàdd ñëw naa man ñoom Samuel Sarr ñu indi ñaari camion gendarme dugg si ci biir néeg biir di def ay seen façon yooyu di intimider nit ñi yëguma ni sax ju fa continue nit ñi koo gis mu ngi xuli ban ma ni waxtaan leen bu ñuy dem ñun ñëpp ñu dem et ñu toog xool xool ñëw ba ci mi man ni waa ji ci boppam ki ñu yebal ma xool ko ba ma xam ni Moussa Basile la mu xool xool te ma leen taxoon ñëw ñu xool xool xool xool ma xool leen ñu xamuñu lu ñuy dem ñu génn ñibbi waaw ah, kon affaire yi du tey yàgg na ni mu ko waxee dëgg la piir fu ne jaar nañ fa waaw fu ne jaar nañ fa ngeen baal ma moom kenn ak moom dem nañ sax yefi ndongo nak, yefi ndongo politique dem nañ ko waaw daan nañu soow nak sax waaw gañu dañuy defar ay ordonnance yu nga xamni ni di so way ñunit lé lañu la ñu def ordonnance yu bare bare bare bare <laughs> ordonnance yu bare sa ordonnance yu da koy tiré mo koy tiré waaw mo koy tiré waaw maa ngi toog waaye maag rek nak ci ruq bi waaw waaw ay sante mu tire na señ bi manu ci ñak de ma ko politique le di ndeysaan waaye ndeysaan ku amun yene ci man la masul nangu sax di ma recevoir ni wala ñuy waxante dara ken diko fekk bu ma ñewé rek mu ma demal ci roku ba xaar ma ma ñew ma ñewé ñu wax wax li ñu tollal bu ñe am ka bo xamni ëpp na ma mu ma bi nak mom fokk nga dem ci gor gi ma ne ko incha allah dem ci sëñ Cheikh ni ko waddi nee lii met nee na nii naa mu ne wax d'accord lii ak lii wax ko nanga mais lii yow bàyyil moom na ñëw parce que mag moom ñoo ko war a seq ma dem ni ko góor gi nee na lii ñun mën nañ ci féete wooy lii yàgg moom yéen a ko war a seq nee na jour tel bu ngeen amee euh, yaatu tuuti rek ma jël si la ngeen ñëw ngeen gise bu wër ba jotee mu ni ma demal nga jëli ku ma jëli maître ñëw dugal ko dem toog xaar leen ñu pare ma jël metre mu ànd ak ñu dem ma dugg góor gi rendre ma compte ci li ma ci tollool ni ma lii nag maa koy réglé mu jaar tak donc jaar nañ fu ne ah jaar nañ fu ne wax dëgg yàlla jaar nañu fu ne fu bare nag fu bare fu bare ah, jàppale ko en autre manière waaw ah, ci loo xam ne yërëm ko rek ndeysaan yërëm ko ndax coono bi ak xam yu bare waaw daan na kon nag loolu rek laa fàtte li dem daan na kon nag danañ ko topp ku ne la mu ca war rek mu def ko ci fii ak feneen ak feneen incha allah l'essentiel mooy ñu bayante xel waaw ñu bayante xel bayante xel te comme ni ma ko waxee yenn entourage yi nañuy bàyyi xel da léeg la ñu def defare defal ni dañuy defaral kilifa fekk dañ koy yàqal waaw te am na kilifa yoo xam ne ku leen xool xam ne taluñu ku leen yàqal

la ci yu jëkk yi ba ci yu mujj yi la yàlla na ko yàlla jàppale ay collaborateur am it na leen yàlla gën a jàppale commandant wu gendarmerie bi la maire dëkk bi ah la moom itam li ma wax ci député rek moom it mooy ñëwaat ci wàllam ñoom ñëpp ak njaboot yeeg ñëpp yal na yàlla defal leen jàmm yàlla def barke yàlla def sutura yàlla def naataange tabarkalla kon nag ñu jublu ci ñaan yi ñaan yi moom lu ne ay niveau yàlla nangu ñu jàng nag comme niñ ko jànge woon yi paase jàng fatiha jàng juróom ñetti li ila fi quraysh jàng ayatul kursi jàng laqad jaakum jàng lixlaas falaqi ak naasi ak salaatul fatixi wala salaatu ala nabi bu nit mën def ko hadiye yonent bi ñu def ci sunu yéene ci réew mi sunu yéene ci diine ji sunu yéene ci njaboot ji yal na yàlla rafetal yëpp ku mënul yooyu itam rek mën nga jàng sa fatiha wala nga yeesal sa yéene rek ñi ci des yóbbaaleel la waaw juróom ñett fatiha ak juróom ñetti lii laa fi qurayshin ayatul kursi laqad jaakum lixlaas falaqi naasi ak ñetti salaatul fatihi wala salaatu ala nabi bu nit man jox ko hadiye yonent bi dugal ci yéene yooyu bismillah ci barke ci bi yal na yàlla def ko xéewal ci réew mi defal ko sago ak barke ak leer ci ñu ñi ko bokkal ñëpp tabarkal kon nag ñu ñaan rek pour borom examen yi bu ñu paree rek nag ñu yeewi nit ñi incha allah comme niñ ko waxee woon ci njalbeen gi ñu ngi beesalaat cant ci seen tur ak ci turu responsable yi jëmale ko ci sunu bajjan soxna mul xayri ak ñi mo àndal soxna Xadija ak tabarkalla ganam yu bax yi te ñëwoon te delu bu ko defee tabarakallah sant ñu bax ñi fi daje ñëpp góor ak jigéen ci wàllu diine